waajal nag bis boo xam ne ndigalul Sëriñ Tuuba la bi gën a rëy ci daa wax ne suñu fête ko daa waxee kon bis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee muy bis bu rëy ñu Sëriñ Tuuba santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant la yàlla suñu borom ci bis bi yàlla def nag ci ñaanam nga ak liggéey bu tedd ba màggal gi dem ba agsi fii ndax bisu ak bay la ndax na ko digle woon daale ci dem ci daale taalibe yi yëpp nag seenu xeet tax màggal gi ak fii tey ba waxatuma la lañ ci yaakaar te mooy li ëpp solo te mooy ko tax a di wàllu ruux dañ ci yaakaar ëllëg suñu digg yàlla dañ ci yaakaar ëllëg suñu digg Sëriñ Tuubaa ci pay waaye ci wàllu àdduna mu dem ba nekk li ëpp doole ci waxuma réew mi waaye ci Afrique wala li ëpp doole sax ndaje yi ëpp doole ci àdduna ma ne soo ko caa muy dugal lu baree bari itam ci wàllu koom-koom muy loo xam ne réew mépp la jaay kon li ngeen tudd tey relancement économique màggal Tuubaa moo moo ci jiitu ndax mën naa ne li ëpp ci nit ñi wala société yu mag yi bu ñu amee luñ bëgg a jaay dañ koy xaare màggal bi ngir barkeelu bis bi kon nag yàlla def Seex Mahmoud Muntaxa duñ ci sañe seq benn jéego ci lu dul ndigalam ab taari bi itam du laaj ndigal day toog bañ jox ko kon ñun li ñu war mooy toog te xaar ndigalu sëriñ bi ba sëriñ bi santaane ne jox naa leen ndigal ngeen wéyal ma liggéeyu ma bi dangeen ko daa defee ci lañ door a tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def am na ci ndaje moo xam ne jàll na sëriñ Ousmane moo ko jiitoo ni mu ko baaxoo defee ci ànd ko préfet bu Mbacké ñu def ko nañ ko nañ ko waroon a defee séentu ci it lañ ci daa séentu te ji itam gouverneur taxawalaat ko ci ndigalu kilifaam yi nga xam ne ñoom dafa teewal tàmbalee ko ci ministre de l'intérieur moom bi nga xam ne moo ko jox ndigal moo taxaw ko moom itam mu def ko nag ci ndigalu président bi nga xam ne ci ndigalam la ko defee kon ñoom ñu ngi leen di nuyu di rafetlu jataay bi itam ñu mu di ñaan itam ñu àgg ca màgg ga jàmm te suñu borom dimbali ñu mboolem li ñuy tiit ak li ñuy ragal yàlla mosuñu ci te suñu xel war ca dal bu baax a baax war a dal xel yi mooy euh, yaakaar ci ndimbalu yàlla waaye yaakaar ci euh, pëstéef ak ndimbalu sëriñ Tuubaa ngir xam ne sëriñ bi kat lépp loo ko sëf te defe ko pëstéef ak ngëm daan la fekk si ci loolu kon ñu ñaan ñu àgg ca te lii nga xam ne moom la adduna sépp ragal muy mbas mii nga xam ne suñ borom ci coobare moo xam li tax mu def ko fi yàlla jeexal ko wéradi gi nag xam ngeen ne gàllankoor na lu bare bare ci àdduna ba tax na sax màggal gii bi ñu koy waaj lépp loo xam ne xam nañ ne mën na andi lenn ci gàllankoor ngir sàmmoonteeg fi àdduna toll ndax dañoo nekk ci biirum réew seq ko ñi bokk réew mi nekk ci biir àdduna yi seq ko waa àdduna kon mënuñoo bett ko ne ko Cheikh Mamadou Mountakha di looloo waral lenn ci ndaje yi nga xam ne sax daal lañu ko def te xam ne mën naa jur fitne wala ay jàngoor di ci juddoo yooyu sax wàññi nañ ko mooy lu mel ne colloque international bi nga xam ne par ñeenti at lañ ko daa def ren jii yàlla def na ngir xam fi adduna toll tax ñu soppi ko def ko ci xarala yi ngeen di tudde léegi visio conférence nga xam ne ñii dañu nekk Sénégal ñu nekk Arabie Saoudite ñi nekk Iran ñi nekk Irak ba Syrie ak réew yu bari ba Amérique France am na ñoo xam ne conférence yi noonu lañu ko doxale kenn ku ci ne fa nga nekk di ko dund ba mel ne ni ñu ko daa defee ndax màggal gi itam xam nañ ci jamono toll waaye nag waruñ ca àgg itam te lañ ca daa jariñoo di manqué ndax yaar yëpp mën na mënees na koo sàmm kon Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam ku ne xam ne na ko kilifaam jëkk yaa daa defee rek ca tànk yooyu la jaar moom bi wéree di xewee la Sëriñ Tuubaa waxoon ca bés ba rek la waxoon mbindeefum yàlla la yàlla mi ko fa wàcce waxtu bu ko jeexale mu jeex kon képp ku gëm yàlla yët dangaa war a tënku ci loolu xam ne suñ borom moo ko doxale noonu ndax moom mi ko fa wàcce moo xam la tax mu wàcce ko fi ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax la ko ca war itam la ci jëkk mooy ñaan loolu tam def na ko waxtu wu nekk mag di ko santaane yëpp ndax ab euh, ab jullit addu'a silaaxul mu'min ginnaaw bu loolu jàllee itam li nga xam ne àdduna da ko indi te lislaam santaane ko ndax ni ko sëriñ bi waxee rek walaa tulquu bi aydiikum ilaa tahlukati loolu lislaam moo ko santaane kon ab jullitu xaru kon sëriñ bi lépp lu mu def da koy natt ba mu dëppoo ak mu wóor ko ne lii sariya moo ko ci sant ci diineem te du yàq mbirum àdduna waaye nag suñ digg ak suñ borom moom mooy jiitu ndax loolu tax yàlla wàcc bi fi kon sëriñ bi loolu la jiital waaye xam ne itam wàllu adduna gi itam suñ boroom moo ko indi ndax dafa indi kilifa diin indi kilifa adduna kon li nga xam ne nguuru Sénégal tëral na ko te ànd ko waa àdduna ñëpp maase ji loolu itam sëriñ bi ni ko docteur yi waxee mu wàcc ñoom sëriñ bi dafa santaane ne ñëpp jëfe la yëmu ca ndax yëmu ci waxe kese waaye da ko boole ay jëf jëf ji mooy ba wéra digg tàmbalee la yëkkati lam ci man ngir xam ne lu jëm ci Sénégal gépp état bi ñoo ñooy seen jiit mu jël ko teg ko ci loxol ki jiit réew mi ngir xam ne la Cheikh Mahamadou Fadi Mbacké daa wax ne domp sax ci sot la bokk loolu ci jublu ngir bëgg wane ci yoon ngir ñëpp roy ko ci xam ne lii kat ñépp war a boole seeni doole ak seeni pexe ngir yàlla suñu borom jële ko yëmu ci itam tàmbulee ko ci Touba mboolem lu ko ci ay ci dëkk li ko wër yëpp bu yëkkati alali boppam tasaare ko séddale ko ba noppi sant ko taalibe Sëriñ Tuubaa yi ak daayira yi yëpp ak Cheikh si ñëpp maase ci kenn ku ci ne ña nga tane nga dimbale ni ko alxuraan santaane li yunfiq su saati min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimmaa aataahu kon nag sëriñ bi ko xam la lépp lu ko waroon ci wéradi gis ngeen itam ba nëgëri li xew lépp itam gis ngeen jumaay Tuubaa ba nag ni li mu santaane bu ñu julli nañu soriante ak mboolem jàkke yi nga xam ne aju na ci moom kon moom pour que ëpp responsabilité ci réew mi néew fi kon bu soñoon taalibe yi ak julli di ak ñi dëkk ci réew mi ñëpp wér ba soñoon ñëpp nekk ci jàmm ndax seen jàmm ak seenu wér mooy jàmmoo moo tax sëriñ bi doogu gi mu ci am ak lim ci santaane sëriñ bi bëggut feebar bi di law ci àdduna si kon Cheikh Maodo Mountakha bëggut lenn luy indi feebar bi law moo tax waxtu wu ne muy fàttali nit ñi di leen wattandikuloo lépp loo xam ne mën na andi jàngoro ji wàllaate kon loolu itam na ko ñëpp xame noonu yëmu ci it ndax euh, dañuy wax ne sunna mooy lépp loo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wax na ko wala moo jëf ko wala ñu jëf ko ci kanamam te weddi ko sëriñ bi nag yëmu ci wax waaye dafa wax ñëpp di dégg yëmu ci mu jëf ñëpp gis ndax ku ne xam na ne bu ngeen gisee mu jël masque yi di ko takk lépp lu ñu fi julu mooy wan nit ñi aw yoon ak wan leen fi ñu war a jaar te loolu itam yaakaar naa war naa am jeexe ci ñëpp xam ne ndegam sëriñ bi nga xam ne mooy suñ kilifa moo bët moo moo ko jël di ko jëfandikoo kon aw yoon la ci képp koo xam ne war nga ko ma def nga def ko kon ni mu ko defee ni la ko sante ñëpp képp koo xam ne man ngaa jël masque nga di ko takk ñi nga xam ne nag xëy ne am nañ ci gàllankoor ndax ñoo xam da tax nañ jël kaala di ko muuru ndax laa darara wala dirara doo lool te doo lool keneen doon kon sëriñ bi mu ngi ci soñ ñëpp di ci sañ soñ bokkitaal bi nga xam ne euh, xam ne màggal gi bu soñoon ñëpp dañ fi indaale ak wér te bu ñu fi jógee itam euh, ak wér toppalante kon loolu itam li nga xam ne médecin yi ak docteur yi santaan nañ ko xool ba xam ne lii mooy lii waral loolu na ci ñëpp maase ci góorgóorlu ji wattandiku ci ba ci biir loolu sax waa daayira Muqaddamatul Xidma incha allah ci biir jumaa ji nga xam ne xam ngeen ne mooy barab bi ëpp fu nit ñi daje di fa siyaare ñoom seen yitte seen xariñ incha allah ñoom taxaw nañ ci ba xalaat ci bu baax ba fas na yéene tëralee ko noo xam ne ñëpp danañ siyaare te danañ sàmmonte li nga xam ne àdduna indi na ko waxtu wi laaj ko kon nag ci biir loolu rek loolu mooy soññe gi nga xam ne ndax màggal gi dafa dikk ci contexte boo xam ne suñ borom a ko tudd noonu waaye rek ñu rafet njort rek ci ne bu màggal gi jàllee rek suñ boroom mën na fee doxe lépp tàggoo fi dem bu faw kon dañ koy ñaan te ci ñaan ndimbalam ak yërmaandeem 啊！